لنا لنسليه ولسنا حقا نؤتيه وصلي على محمد لا إله إلا الله على محمد فإنا من محمد لنسليه ولسنا حقا نؤتيه وصلي على محمد كنوتي وصلي على محمدنا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي على محمدنا فكرر ولا تنسى فإنه أنت لا ينسى إذا من قلب ما أنسى وصلي على محمدنا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي على محمدنا فإنه أنك لا يسمع إذا فتك ما أنسى وصلي على محمد لا إله إلا إله إلهي على محمد نبي حسبي كل نبي أبتهي كل نبي يزربي كل أصلي على محمد لا إله إلا الفضل على فكن محمد لا إله إلهي إلهي إلهي إلهي على محمد فإنا من محبين زاهدين صلي على محمد لا إله إلهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Yeah. الله الرحمن الرحيم وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت ربي أحسن مثوي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم يا سلام يا سلام يا سلام ان شاء الله tabarakallahu rafet nañu sa jàngale alxuraan bi ñun ñëpp dégg nañu kontaan nañu trop ñun tamit euh, di la rek taxawaay ba nga am ba nga dem représenter euh, ton pays Sénégal si concours jàngale alquran li repère la pour yoo xamante ni képp yoo xamante ni ñu ngi bëgg a lancer xam-xam surtout si alquran ak képp yoo xamante ni pour taxawal daara. lii moo ala kulli xaal repère la si ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal tamit yalal yàlla nga fi sa si xam-xam yàlla yàlla yàlla yàlla sa xam-xam mu gën a ba nga vraiment dem feneen yokk sa xam-xam ba nga am doctorat sa njariñ tamit yalal yàlla mu law biir surtout jeunesse vraiment pour dem vraiment nga gëstu si lii ñun amuñu lenn yoo xamante ni mënuñu la fay te yàlla mi yoo xamante ku fay doomu aadama yàlla li yàlla taxaw la ak ceeb yoo xamante ni taxaw nañu thème pour euh, défense euh, xam-xam yàlla yàlla taxaw leen ngeen ñëpp ñoom ñëpp si seen si biir seen daara bi kon alhamdulilah macha allah ndax alquranul karim képp koo xamante ni yaa koy jàng te njàng wu basé wu kii xam-xam kii kawaayidu tajwid loolu euh, kenn ci suur waaye tamit euh, dina ci naan ba doyal alhamdulilah euh, moom dëgg la teeluñu xamante waaye amaana que am na koo xamante ne ñoo bokkoon daara te mu doon suñu mag daara mooy suñu Hadu Touré te Fass Touré eh, bokk nañu daara ki alhamdulilah sëñ Diop te Ndar Géej te loolu eh, dëgg yàlla cofeel daa mel daf am na fu kii eh, ak tamit Cheikh Omar Foutiyou moo moo am na daara ju mag kii ca Mbuur moom suñu wëllëre la <laughs> dëgg la ndeysaan ومن آه، بجارة دغدا كي دغدا الحمد لله كل لمي لمي فيرندل لي دا ملي نيو با باس باس ا آه، ديكو نيالا غودو فال دي وير يالا يالا يوري باتكي دارا دي گنا ام دولة سي مبرم دول دول گن كا دولة آه، ا كيف كو خامديني نياغال كات قران ما شاء الله موي غوكو امر فوتيو moom Foutiou moom it jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la doomu soxla la ab shaayir mag la alhamdulilah. bu si kanam it dina fa def prestation diggante euh, maanaam 40 minutes incha allah loolu euh, bu bu ñaari conférence yi demee incha allah moom dina dina ñëwaat incha allah dina ñëwaat. na nga teewlu mbokk yi kon ñu delloo ci. Kocc Barma soose bi sai ba na kafñobiyan a fana naɓeɓe ɗo ko kilewno euh, ibrahim cheikh ibrahim a fana ni bakke laalu comme mona bakke laale tuna ji euh, ni bakke laale beddi comme ye temo min traité temo miyana ko yakacca gono ba to inshallah faram ba ba analyser la ba analyser la comme ka décortiquer dum ni ke atawado ta dum ni inshallah wa ko la ngi sa won dor fa inshallah ani su ko la fa bi ja fa do sok ani fa na personnalité mi ala ko dor be sila kay mo fa na fa lo fa na da mo lo inshallah fa na parole soto inshallah akamunda ni fere ke na ni siku ani maa bilal beetu kato jan mun ban folo kujuma tudo ko mi eh, ya go inshallah bim surprise le ke wo ke ani be mo ko doya kadu mo balam mo balam be mo ko doya mo balam be mo ko doya ni mi ya doya ni tan doya da wayo mo doya ala mo doya ni ha inshallah taala nyaadi suku dalala ay mo ko no dia ay sukola pallu e wa dawda inshallah loɓoleke euh, cheikh yacouba sisé amadunna mawɗo kon euh, ala mawɗu ñafa kummata baaki ñananko yeta allah ko bi tarbiyatel awlade euh, wala min dinduno karanti islamo karanti kemo ko yaade karantiro min sifake bagana sade kon anin pagan tundo kon o karantirole mbi wole min wulu ɓanko kan fa tabaraka llahu cheikh yacouba sisé afala mu daana tedi tabarakallahu magistiurement ci talɓe cuurum afala mu nawole aya kono diyawol inchallah ɓe jeno gueɗam